te man damaa gëm ci politique mérite maa gëm ci politique ki sonn mu am ñu récompenser ko man góoma kuy caaxaan ñu di ko récompenser kuy sonn ñu di ko récompenser ñu di ko jox cëram laa gëm ci politique. moo tax na ngeen dalal seen xel ci li ngeen wax ne ngeen gis seen bopp ci conseil départemental incha allah la ma njëkk wax mooy leen ko annoncé mooy Serigne Fallou Diop dana bokk ci bureau bi. loolu moom pour votre information xëy na sax damaa ñàkk secret sax di ko wax dama amu secret dama dama amu secret waaye waaw loolu daa ko mënta muñ muñ ndax xam naa ne incha allah àllarba àllarba àllarba bii ñëw le préfet war a installer conseil départemental donc le président est déjà élu mais des na ay vice président ay secrétaire élu loolu ñuy constituer le bureau di conseil départemental mais Fallou moom bokk na ci bureau bi moom. waaw danaa danaa ci dolli danaa ci dolli commission. Euh, wax dëgg yàlla dama ko mënta muñ wax dëgg yàlla mënuma ko muñ <laughs> waaw mënuma ko muñ il faut ma wax leen ko moom loolu moom ndax man occasion bu nii day xaw a jafewaat occasion bu nii day jafewaat ndax te àllarba la ñuy def incha allah àllarba la ñuy àllarba la ñuy war a euh, monter installer le conseil départemental et son bureau à 10 heures pour votre information vous les journalistes si ngeen xamee ko noonu bu leen neexee ngeen wax ne Fallou Diop membre de bureau la euh, commission yi tamit commission yi am na ay commission da ngeen ci am benn bu soobee yàlla